yow sama ne Aziz nee nañ tax na yow yàlla baax na eh c'est bon Modou Diouf cordonateur adjoint du front Multilutte doy na euh, du si nen la Macky Sall jagleel déclaration bu njëkk ci li nga xamante ni moom moo soxal réew mi jamono yi di affaire Ousmane Sonko ci ab média boo xamante ni média français la ñu koy wax RFI pour yéegee Macron xam ngeen ne France pareegul benn yoon pour teggi loxoom ci colonie yi nga xamante ni moom la am ci dëndu Afrique loolu mu ngi koy def dajale ay jumtuwaay yu bare bëree bëree bëri pour faagaagal di ko jaarale ci faagaagal naax saayal di tiitalaate walla sax ñuy gàddaayloo ay nit ñoo xamante ni soit dañuy bëgg a laaj seen boppi réew walla mu nekk ay nit ñoo xamante ni dañu taxaw pour delloo Afrique moomeelam dañu taxaw pour Afrique mën a jot dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu mu koy jaarale ci ay dàggam yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk nekk ay njiitu réew maanaam ay taalibeem ñu gis loo xamante nii li fiy xew mu doon xew dëppi indépendance yi ak léegi di comportement wu France jëmale ko ci pays africain yi nga xamante ni moom moo ŋànk seen koom-koom Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen képp koo xamante ne nii réew mi yitteel na la senegal jël koom-koomam yitteel na la askan wi gis seen bopp ci dëkk yi ñu nekk yitteel na leen ñu faagaagal leen bu ñu nekkee ay homme politique wala bu ñu nekkee ay activiste ñu leen loolu doo leen ko fi waxee du fi amee jël ñooñu bunduxataal leen yóbbu leen ci ci kaso yi di koy jaarale ci ñi nga xamante ni wax naa ko léegi ñoom ñoom ñoo fi nekkal Emmanuel Macron di les présidents africains pour wéyal teg loxo gi mu teg loxo ci suñu ay économie jaarale ko ci ay entreprise yu bëree bëree bëri ñu mën cee lim buy Bolloré Total Orange Auchan Carrefour ak yeneen ak yeneen ak yeneen depuis que bi ñu amee li nga xamante ni moom mooy saamandaay ay indépendance mu bëgg koy continuer ba ci jamono yii ñu ne ci logique boobu ci la nekk mais li ci gën a doy waar mooy def ci àndandoo ak suñu ay chef d'État lii xew senegal ñu ngi koy nimeeku fi nga xamante ni moom mooy réewum Tchad nga xamante ni opposant bi mi nga xamante mooy opposé wu de bi ñu koy wax Yaya Dio Diéro ñu attaqué ko 28 février bii këram te ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def di ay militaire Idriss Déby am jàppaleeg France te loolu lépp bu ñu koy def fii nga xamante ni foofu la ñu koy teg mooy France daal képp ku bëgg a xëjamal cereem ñu faagaagal la wala ñu jël la denc la ci ci kaso gi loolu nag moom lañuy tuddee France Afrique maanaam li liyee diggante France ak réewu Afrique yi nga xamante ni pare guñu pour jëlee pour jële ko fi nañu fàttaleku wax ji nga xamante ni Emmanuel Macron wax na ko jëmmale ko ci ay njiitu réew di laaj ñu leeral position bi nga xamante ni ñenn ci homme politique yi yi nekk Afrique ñoo ngi koy am jëmale ko ci base militaire française yi te ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy amal ñoom lañuy wax ay panafricanistes ñi jóg ngir delloo dëgg dëgg dëgg dëgg Afrique gëddaam ñi jóg pour africains yi mën a gis seen bopp ci seen koom-koom Emmanuel Macron wax ba léegi ne moom dafa jàpp ne diggante France Afrique relation bi daal relation mbëggeel la war a doon ñu jóg pour restituer delloo dëgg Afrique moomeelam xam nga jamono yi coow jóg na ci wàllu franc CFA taxawaay yimu ci nga xamante ni moom la ci taxawee ñépp xam nañu ko waaye ngeen xool ndigal loolu Emmanuel Macron di jox chef d'État africain yi ngeen méngale ko ambition yi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko am ba am lu mu ci fësal déclaré alxames bi passé ci kàddu yi mu ne ci panafricain dafa jàpp ne Afrique mënta développé wu ci ay état yoo xamante ni danga koy def ay pacc pacc pàcc pàcc pacc pacc mu ne moom ambition dafa tënku ci fédération boo xamante ni comme ni ñu ko defee ci CEDEAO ak 381 millions d'habitants ci juróom benni million kilomètre carré mu ne loolu rek moom mooy mën a soqali am réew loolu mooy mën a soqali Afrique ngeen méngale ndigal yi nga xamante ni le président Macron jox na ko ay taalibeem ak diskuuru Guy Marius Sagna ak ay les camarades du Front pour la révolution anti-impérialiste et populaire mu ne moom sa bopp ci sa koom-koom moom sa bopp ci sa réew base militaire yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal dañu war a dégager di dénoncer aussi lii nga xamante ni boobu ak léegi daanaka avant ñu jot suñu indépendance moom moo ñu lié woon ak France ñu ne loolu mu ne muy du deñ ci wax ne loolu dañu ko war a dàkkal dañu ko war a dagg pour Sénégal dëgg dëgg dëgg mën a mën a demal boppam waaye muy wax aussi ci li nga xamante ni moom mooy accord de partenariat économique ngeen méngale ndigalu Macron jëmale ko toujours ci taalibeem yi ko nekkal Afrique ak lépp li nga xamante ni moom mooy xew fi mu toll nii Afrique Sénégal en particulier ci wàllu saax-saaxee gi ñu saax-saaxee suñu ay liberté naax saayal gi ñuy naax saayal suñu état de droit ak bépp injustice boo xamante ne nii askan wi ñoo ngi koy nekk di di dund dingeen ngeen donc xam dëgg dëgg dëgg dëgg kuréel gi nga xamante ni mooy le front multilutte doy na lan moo ko tax a sosu ci jamono boo xamante ni nii dañuy saax-saaxee ay suufi jàmbur di ko jox ay nit ñu ama ama ama am doole di jël ay këru jàmbur di ko toj di jël ay forage yu jàmbur di ko nangu di ko jox ay doxandeem liggéeyukat yi seen ak ak seen yeleef ñu koy nappaaje waaye tamit dëkku kaw yi depuis indépendance ba fi ñu koy waxee daanaka amut lenn loo xamante ni day jóge ci nguur di fa dem naamte ci réew mi la bokk wara nekk ay citoyens yoo xamante ni di citoyens comme tous les citoyens loolu lépp boo leen ko jëlee ngeen xam dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xamante ni moom lañuy nekk di dund lan moo koy lan moo koy firndeel lan moo koy moo koy sabab xam nga Emmanuel Macron santiment bépp boo xamante ni dañu koy am muy un santiment anti-français bi nga xamante ni daanaka mooy juddu di commencé di juddu ci réew mi loolu la bëgg a la bëgg a du lenn te képp koo xamante ne nii yaa ngi jóg teggu ci yoon boobu ñoo ngi ci sa ñoo ngi ci sa kaw ci népp nu ñu ko mën a népp nu ñu ko mën a defe na projet boobu nag bi nga xamante nii moom la ñuy wax projet de liquidation projet de liquidation liquidation nekk jàmbaar yi nga xamante ni dañuy jóg di xeex delloo Afrique koom-koomam jàmbaar yi nga xamante nii dañuy jóg di xeex pour Afrique moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boppam loolu moom la ñu nekk di leen xoñoñal di leen bunduxataal ku ñu ci mën a génne réew mi sax ñu ñu génne la réew mi ci jamono bi ñuy wax lu ëpp juróom fukki nit tey nañu leen ci commissariat yi ci polis yi li nga xamante ne nii moo ci gën a doy mooy ci ñu bëri dañu lay téye ba pare dem di wuuti ay motif yoo xamante ni moom lañuy teg sa kaw xam ngeen ne semaine yi génn université ay vigile téye nañu fa ay étudiants dem leen jébbal leen commissariat wu point E ak li ñuy wax ay arme blanche suñu police nationale ñuy wax ne warul bokk benn yoon ci lii nga xamante ni moom la askan wi nekk di di dund suñu police nationale warul bokk benn yoon ci complot bi nga xamante ne nii ñoo ngi koy def jëmmale ko ci ay citoyens yoo xamante ni taal réew mi yiteelu leen li nga xamante ni moom moo leen yitteel mooy delloo Afrique koom-koomam delloo Sénégal koom-koomam Sénégal yëg boppam ci am réewam. am na yoo xamante nii aussi yu ci bëri ñu koy nemeeku jamono yi ci ay mettital yoo xamante ni gis nañu ko sur le terrain ñu koy jëmale ci ay ay ay ay soxna ñu ciy gis ñoo xamante ni sax saax saaxe nañ leen avant que ñu leen di dugal ci oto yi ñu jàpp ne loolu dafa war a naam sax dégg nañu direction police gën di artu naan mayatunu benn yoon kenn di teg ay tuuma ci kaw polis bi waaye ñun li nga xamante ni moom lañuy gis moom la sénégalais yëpp gis di ko nemmeeku loolu da la loolu da lañuy wax nekkuñu nag ci réew moo xamante ne nii dañuy teg ay fitna ne nit ñi doo leen ko fi jooyee loolu amul ci menn réew te loolu te lii nga xamante ni moom mooy xew nga xamante nii dañu koy seetlu ci jamonoy maam war a dafa war a dafa war a dagg dañu ko war a arrêté ñuy wax bépp citoyen boo xamante ne nii Afrique moo la soxal réew yi ñoo la soxal senegaal moo la soxal suñu koom-koom dellu siwaat suñu ay loxo lii nga xamante ne nii mooy nekk di xew dak ñuy woo ñëpp et que également camarades yi nga xamante ni ñoo ngi leen di jàpp di leen séquestrer chaque jour ngeen koy dégg pour mu dak ñuy woo ñëpp ci manifestation yi nga xamante ne nii ñoo ngi koy war a def di ay manifestation pacifique ci kaw loolu déposé nañ ci ay déclaration ak yëpp yoo xamante nii ñu ko yoon santaane defe nañu ko noonu fépp ci biir réew mi ñu ciy woo bépp sénégalais boo xamante ni koom-koomu Afrique dellu ci africain yi moo lay yitteel koom-koomu Sénégal dellu ci loxoy sénégalais moo lay yitteel France teg loxo gi nga xamante ni moo koy teg loxo ci suñu koom-koom moo lay yitteel ñett ñi nga xamante ne nii dañu leen ne doo leen ko fi waxee ñooñu am liberté d'expression suñu état de droit ñu consolider consolider ko moo leen yitteel ñu leen ci woo ñu ñëw jàpp ci parce que réew mi suñum réew la dañu ko tabax ba mu agsi fi mu agsi donc du tey la ñuy nangu benn groupe nit di ko naax saayal naax saayal suñu démocratie mais également faagaagal liberté individuelle ak collective yi nga xamante ni jusque là moom la ñu construire je vous remercie. Si vous avez des questions. Euh,